yi nekkoon am xam ne ñu baree baree bare dañ ci fàtte te dara jiitu boo xoolee alquran suñ borom ci fu mu waxe julli rek asaka ci te mel ne nit ñi dañ ko woyofal ba tax ñu di ko fàtte ndax ni alal di tax ci xolum borom waaye nag dañ xam ne asaka bi bokku suñu alal dañ ko mën xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha xam la ci suñu borom bindoon kon ñëpp day maase ci gën a góorgóorlu foofu ndax liñ ci jëriñu mooy dana laabal alal yi su ko def ndax alal gi des ci te génne ko asaka moom ko bu xasee man ni sax ba asaka wàcce ci yaxalu suñu borom waral na ca asaka ak ci ñu ko war a foog ñu ko xonkata sax néew na suñu borom lu muy détaillé suñu accord daanaka loolu suñu grâce bi néew lu ci ëpp lu jub rek borom xam-xam waaye innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masaakiin wal aamiliina alayha wal muallafati quluubuhum wa fi riqaabi wa min sabiili fariidatan min allaahi wallaahu aliimun hakiim ba leer nañ ko war a jox wal muallafati quluubuhum ñoom asaka ñu ko war a jox borom xam koy tëgg lu ci ne rek am na ci lislaam te ñëpp commencé woon ci li koy lu bari ci ñu néew doole ndax asaka ñoo ko génne lépp boobaa ñu nga daan def wàcc te Serigne Touba xam nga ñu bari ci taarix bi nit ñëw na yëkkati addee ñu ko jox asaka la ci mbir sëriñ bi day dem na ko génneel asaka yi doo ko nekk kon nag bokk taali bi gën a yeewu ci xam ne asaka bokkut ak asaka àq la ñoo ne àq borom la yow mi liggéey alal bi ba mu leew ba waxtu fekkaat ko fa loolu dañ ko wóobu génn ko laawal moo waral xam nga ne naka jëkk ci lislaam baytul maal téere yi bari daf ko ci jàng waaye daanaka nit ñi dund ko sax ndax amatul ndax yooyu ay attale yoo xam ne nit ñi day dem ba fàtte ko wal wal aamiliina alayha bu ko déggee booba ci yooyu jamono dañ daa sàkk ak kuréel buy dem di ko laaj ak di ko joxe kon kuréel gii ñu taxaw daal nañ xam ne loolu buñ ko nosee comme ñoom liñ baaxoo def def ci seen biir yëpp luñ ci dugg yaa defe leen ci ndimbal defe leen ca tawfeex ndax dañuy jiital xalaat bu xóot teg ko ci yoon doo ko yëkkati ndax lii kat bañ ca laajee sëñ bi digal yàgg na kàddu yi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkati ci soññee it doy na sëkk ay kàddu buñ ci toogoon bu guddi di wax it mënuñoo romb kàddu yi la mu wax kon nag Cheikh Mamadou Mountakha nee na sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm yàgg waa daayira Touba ci kanam ngir xam ne yéen ñi ko seq ñëpp te dama koy faral di wax muy yow ni sëriñ Abdou Lahad ak ñi topp seen ginnaaw dara itteel ci dara lu may sëriñ laa war a ñu tam ñu topp seen ñu ngi joxe seenum xel bi ca dem kon loolu yàlla yàlla yàggal ko ba li ngeen sumb bëgg koy jàppale ki fi nekkee Serigne Touba ci biir dëkku Serigne Touba bii nga xam ne Serigne Touba dëkk bi rek mooy li ko itteeloon lu fi waaye defee moom nga ko defal yàlla yàlla gën a barkeel kuréel bi ba lii ngeen sumb tey bu dem ba nekk ay milliards yu bëree bëri yoo xam ne dana mën a amal njëriñ ñi nga xam ne néew nañ doole te bari na ci jamono te suñ borom waxtu rek di fàtte ñu war a dimbale ñi nga xam ne dañoo néew لينفق من ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله waaye nag kuy def lu baax rek day fekk nga génn askan ba wóor la ca des na lew yaa xam ne da nga yëkkat def lu baax bu dul loolu rek lañ ca yéene jëf-jëf yi wàcc kon ñu jeexal yi di sant ñi fi teew yëpp di leen di ñaan suñu borom lim ci delloo ci tuyaam yàlla ñu tàmbali ci biir te laa tubtilu sadaqaatikum bil-manni wal azaa yàlla na ko yàlla defal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu suñu borom boppam moo lay tudd ñi nga xam ne ñoom war na ñoom ñoo wax lekk asaka buñ xoolee nag lislaam jamono yi nga xam ne ne lislaam mooy àtte ci am na boobu loolu lislaam ñu jox rek waaye dafa wutoon kuréel boo xam ne ñoo daan dox di jëlee asaka di ko war a joxe ñooñu ñoo doon ñetteelu di man ñoom ñëpp ñëpp juróom-ñett yi ñu tudd ñu teew ñu teew ba ñu tudd alhamdulilah yaa ñooñu doon seen liggéey mooy ñu dem ci ñu war a jox asaka seet lañ war a joxe ñu ko ñu ko génnee ñu ngi dajee fi bërëb di ko jox ñu war a jox loolu nag dafa mel ne buñ xoolee këru asaka yi nga xam sëñ mën taxaa moo moo santaane di tubaab tubaab di garam taxaw ko dafa mel ne daa dellu daa delluwaat te loolu mu dalaa sunna soo fexe ba lu amoon solo loolu nga xam ne xamante ni islam mooy ñi nga xam ne dañoo seetloo di leen di dee affaire yi am ko jox ñu fexe ba ko ci kër askan yi nga xam moom moo tay kon ñoom dafa mooy liggéey nag mooy Sénégal ma nag jekk nit ñi ñuy génne asaka waaye li def-def bi ñu mooy dañ ko doon seddale ñu ko nit dañ koo seddale ba gis nañ ne asaka li war a njëriñ dëgg dëgg dëgg ci fexe ba nit ñi coono yi nga xam la ak itam li faral daal di gën di am ak di ñàkk mu fexe ko loolu dem mel na ne asaka ci yoon bi day génnee ak ci ko doon joxee ñu doon soxla bokkoon na ci état bi xam ne nii moom lu am ci suñu doon kon nag daf mel ni kër gi lii di yeew dëgg dëgg dëgg mooy fexe ba loolu nga am. xëy na ñëpp daal ci ne duñ jël jël barab di ko yóbbu foo xam ne ñu ko aajowoo njàng fa ñu ko tuxal feneen xam nañ baax ne am na ci alal asaka yoo xam ne nu ngi tuxal loolu lépp kuréel gi dana bàyyi xel du fa jóge loolu yi ñu ko bàyyi ñu xam ne moo yor liggéey bi moo yor liggéey bi moom loolu waa Touba ci kanam moo ko ndax ñoom la sëñ bi nekk bi ay achara moom ay borom xam-xam lañ ñuy jàppalante ñoom di leen teete di leen saytu liggéey bi ba dara bañ ca wuuteeg lislaam képp koo xam ne tam am nga loo joxe asaka waaye danga ngaa gànt da lànk da am daani yàlla da am ay daan ci àdduna waaye da nga am ay daan ci àllaaxira bokk na ci daani adduna yi yonent bi nee na nit ñoo xam ne dañoo lànk ne duñ joxe asaka suñu borom dana leen nattoo bekkoor am na fu mu waxe ne bu ak bahima yi muy fas yeeg nag yeeg xar yi ak bëy yi bu ak ñoom kon sax dootu taw ndax jëppi gum leen jéppi waxaat na ne képp koo xam ne dangaa génne asaka ngir sàkk toyaaboo ak njekk danga nga am toyaaboo ku lànk nag ne doo ko génne dañuy dañ koy foqar ci ci yow xaaj sa alal ca digg foqar ci ko ba nga xam ne mbirum yàlla du caaxaan bis ne ni tey xam ne liggéeyu askan yi tàmbali képp ku nit ñëw jox la alal yëpp nangu ko nangu ko soo ko téyee nangu ko wala itam am na compte boppam buñ koy def bokku de compte gi ñuy askan yi nangu ko téye loolu gis nañu tey boo leen coordonnateur wala coordonnateur touriste bu nekk ci àdduna bi ak foo nekk moo xam ñu ci réew moo xam am ñu ñu gis nekk rek euh, mooy ñetteelu ponk ci lislaam ni ko suñu kilifa yi waxe ndigalul suñu borom la loo xam ne lu la lu mënta ñàkk la euh, lii nag day loo xam ne islaam dafa digal kilifa ak diine gi jiite diine ji mu koy jël ci ñi am ngir di ko jox ñi ñàkk loolu la wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam xus min amwalihim tadaxa yàlla def nag ci doxinu jamono ñu dem ba yàlla dogale ci ndigalul sëriñ Mahamadul Muntaxa ci tawfeex ci tawfeex yi borom xam-xam yu tedd yi ñu àndal sëriñ bi joxewaat ndigal ci e, Touba ca kanam mu taxawu ngir dundalaat li ñuy tuddee kër asaka yi waaye mbooleem luy kër diine ci dëkk bi ñi ñu bokkal diine ji fas nañ yéene wut ay commission yoo xam ne danañ dem ba toog ak ñoom wax leen liggéey bi ni mu demee xamal leen ne lii li tënk Touba ca kanam muy daayira murit bu nekk cib dëkk tënkut asaka asaka mbirum diine la ci fépp fépp fépp ci àdduna